salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki groupe arrahma nu ngi ñëwaat delsi di leen nuyu di leen ziyaar leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci groupe arrahma di ànd ak ñun ci dawra bi nga xamante ni moom la ñu taxawal macha allahu taala eh, te démb oustaz doon ilqa benn dars eh, ci dawra bi bu am solo boo xamanteni wax deug yalla japp nañ ni wa groupe bi deglu nañ ko masha allahu taala xamna comme nañ ko bindé ci groupe bi euh, incha allahu taala dañu bëgg deglu wat sa sambu mu del ci motali waxtaan wi nga xamni ne nako ko def demb kon incha allahu taala mbokk groupe arahma yëpp ñu ngi leen ni wo ak mboolem ñi nga xam ñu ngi koy topp ci seen YouTube bi mu amee waaye ak ñi koy topp yi tamit ci groupe WhatsApp bi ñu ngi leen di dalal di leen wax jaa jëf di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu fay waaye di waat xel bu baax incha allah dawra bi nga xamante ñu ngi ko war a taxawal kon xam naa dañuy bàyyi Oustaz Samb incha allah su waxtu wi jotee rek dana dellusi pour continuer. li nga xamanteni mom moy waxtan bi mu commencé won démb di ñaan yàlla subhanahu wa taala yalla na yàlla fay ko te dëgëral ko waye fay mbolam ñi nga xamanteni ñu ngi ci biir groupe arham ñep ma sha Allah taala di len wax jazahumullahu khairan wa barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki groupe Arrahma ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk di fa séene dellu siwaat ci jéem a yeggale tuuti rek loo xam ne des na ci dars bi ñu doon jàllale démb ak tënk lay doon rek ci li nga xam ne moom lañu jotoon a Eh, jàng démb tam jëm ci war goo xam ne war na ko ñu jàpp ci sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk gi na tey day aju ci juróom benni tomb tomb bu njëkk bi mooy ana lan mooy taxawaayub sunna ci pas-pasu nit ki maanaam taxawaayub jàpp ci sunna lan lay tolloo ci pas-pasu nit ki bu ñu jàpp ci sunna nak moy jàpp ci doxalinu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wi mu doon doxale ci walu jaamu yàlla ci giiruk dundam mo xam ci alquran la koy jele wala ci wahyu gi nga xamne sun borom mo koy wahyu mu koy tekke alquran atamasuku bi sunnati wal abdu alayha bin nawajiz min usul al iman jafandu ci sunna ak teyeko bu deugur ci sa dëgëj ji gën a sori maanaam mooy jàpp ko jàppin wu dëgër dafa bokk ci reeni ngëm yàlla lii wana ne nit ki ngëm am dëgër na mooy kem nu mu téyee sunna yonent bi sallallahu alayhi wa lu tax loolu ndax yonent bi ci boppam moo wax ne ngën ji njub mooy samam njub xayral hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngën ji am njub mu dee ci topp mooy njubum yonent bi sallallahu alayhi te yonent bi ci boppam dafa wax ne maa ngi leen bàyyi ci aw xàll woo xam ne dafa leer naññ guddi ga ak bëccëg ga ñooyam képp koo xam ne jàdd nga rek képp ku alku rek mooy koo xam ne da ngaa jàng wàcc yoon wooyu ma leen bàyyi taraktukum ala mahajjatin bayda layluha ka nahaariha bàyyi naa leen ci am ngir aw xàll woo xam ne wu leer naññ la woo xam ne guddi ga dana fayax leer naññi comme ni bëccëg di leere mu ne kon nak la yaziqu anha illa halik ku alko dal moy xala wàcc yoon wowo kon wàcc yoonu sunna ci alkan rek lay jëme borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nek na fi ba jóge fi ba faatu amul dara dara dara lu bax lu mayne jàngal nañu ko door fe jóge amul dara dara dara dara lu bon lu may ne xamal nañu ko bañ man koo moytandiku mu door foo jóge kon diirub ak dundam li ko fi taxawoon nekk mooy xamle lu baax ak tere lu bon lépp lu baax jàng dina ko ba mu jeex takk bàyyiwu ci dara lépp lu bon tere na ko ba mu jeex takk bàyyiwu ci dara yonent bi moo ko waxal boppam de nee na amul dara dara dara lu baax loo xam ne da leen di jegeñal àjjana lu may ne jàngal naa leen ko amul dara dara dara lu ban lo xamne da len di taxa jage sawara lu may xamal na len ko bëggee man ko sori dal koy leral nañ ni nak kon japp ci sunna su bi sallallahu alaihi wasallam da fay nek lu war waaye dafa bok ci reeni ngam yalla tomu ñaarel bi sunu borom tabarak wa taala dafa lëkkale Top ak top guñ koy top mom ak top yonent bi manam japp ci alquran ak japp ci sunna top yalla ak top yonent bi alquran mo leen lekkale maanaam boole leen ci genn buum nga xam ne mënuñoo tàqalikoo loolu andi nañ ci démb ay tegtal yu baree bari ci alquran ak ci sunna si yonente bi salaa salaam ay firnde yu koy tegtale man yutixi rasul faqad ataa allah wa man yutixi allaha wa rasulahu faqad faasa fawsan aziman aay yu baree bari la jërul ñu si jaaroon nañ ci démb boroom def ndigalam ak ndigalal yonente bi mu nekk lenn ndigal maanaam kii topp yonente bi mi ngi topp yàlla kii topp ndigalal yàlla mi ngi topp ndigalal yonente bi sun borom tëkkoo bu baakha baakha baakha a baax ci tekk bo xamne bu taratar la jajj nit ñi kupp leen ci wàcc yoonu yonent bi alayhi wasallam wala wuuteeg ndigalam wala di fent ay bida di ko duggal ci biir bi alayhi wasallam wala sax ko xamne ne day atte ba nopi lam atte nga ci am ñag ñag xol ñi ñëpp sun borom da leen a xupp xupp goo xam ne gu taratar la dem andi nañ adilay tektal yi ci alquran فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كن يونت بي صلى الله عليه وسلم بقسي اتمبير نيب دنجي اند وايي نك اند تي قلب سد غيو اقل مدل وايي بو تي امي نياغ نياغي قول ولا ام دارا لو ميت تي اتبي رك su boobaa loolu eh, alkan la lay jural ñetteelu tomb bi ñetteelu tomb bi dafa bokk ci mandarga yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu koo topp ci mboolem ay waxam ak ay jëfam ay yëngutoom ak ay dalam ba sax su ma saan tëdd di nelaw day tëddee wetu ndeyjoor kon dafa bokk ci sunna sax booy tëdd dina dem nga tëddee wetu ndeyjoor waaye sax ñaañam daan jàng di ko jàng nam daan taxawe ak noppeem ay waxam lépp ñu ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daa bokk ci màndargay bëgg yonent bi te xam ngeen ne bëgg yonent bi day bokk ci liy taxa ngëm yàlla mat loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain kenn ci yéen du gëm lu may ne dama koy gënal boppam gënal ko ay doomam gënal ko ay wayjuram gënal ko mboolem nit ñi kon daa bokk ci màndarga yu tegtale ni kii bëgg na yorente bi mooy na muy toppee bi ci ay waxam ay jëfam ak ay yëngatoom ak ay dalam lépp mu ci topp yorente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ba tey daa bokk ci liy tax yàlla bëgg la daa bokk ci liy tax yàlla bëgg la mooy nga nangoo topp yorente bi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah loolu mi ngi ci alquran sun borom ma wax yonent bi ne ko waxal julli ji ne leen su fekkente ne bëgg ngeen ma yalla bëgg kon nit ki su bëggee yàlla topu ko na nangoo topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci alquran ak ci sunna kon loolu moo tax mooy sabab ci bi boroom xam-xam yu njëkk yi ak yu mujj yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ay njiit ci lislaam ñoom ñépp dañoo wax ne topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa war waaye doo am ci topp ko dong de waaye moom ngay jiital ci mboolem xeeti gis-gis yi nga xam ne moom la ñeneen di gis mooy aw gisin rawatina su fekkente ne li wax taarut dafa am maanaam luy nuróog ak contradiction ci boo ko gisee ci alquran wala ci sunna su boobaa dangay ngay ci sunna yonent bi ngir mën a dégg alquran kon lépp loo xam ne dafa wuuteeg maanaam li nga xam ne gis-gis la ci nit ki su fekkente ne dafa wuute ak lu alquran wax wala nu wuuteeg lu sunna wax dañuy sànni gis-gis yooyu yëpp te jàpp ci alquran sunna ak ko mën a wax nag lu wuute yi bari bari alquran sunna rek mooy nattuwaay bi bi nga xam ne ci la ñuy xoole ba xam kan moo ne ci dëgg moo tax ñoom aima yi nga xam ne ñoo jiitu woon ku demee nekk al imaamu malik ibnu anas radiallahu anhu ku demee nekk imaamu shafii radiallahu anhu ku demee nekk imaamu ahmad ibnu hanbal radiallahu anhu ku demee nekk imaam abu hanifata ak mboolem aima yi jiitu ak yi ñëw seen ginnaaw ñoom ñëpp dañuy dëppoo ci di wax ne ida saxa alxadis fa huwa madhabuhum su fekkente ne xadis wér na ñoom seen xalaat dañ koy wàcc léegi kay xadis ba mooy seenum ngir maanaam su fekkee fekkente dafa am ay wax joo xam ne dafa ñëw ci ngirum Malik ñu xool ne gis na xadis bu gis nañ xadis bu wér bu wuteeg moom te nekkul xadis bu saas nga xam ne xadis ba lépp lu tax ñu war a jëfandikoo xadis rek dajale ci moom ci wér amul benn illa bu ca nekk su boobaa kenn dootu topp lañ naan lii Malik ko wax wala borom xam-xam sàngam moo ko wax ci ngirum Malik wala Abu Xanifata moo ko wax wala borom xam-xam sàngam moo ko wax ak kooka kum mën a doon. ndax ñoom a ima yi kat ñoom kilifa yi ñoom seen bopp nga xam ne ñoo ne ca bopp ngir ya ñoom ñoo wax ne saa bu xaddis wéree rek loola mooy seen mazhab donte sax nag ñoom sax xaddis boobu jotuñu koo xam donte ñoom jotuñoo xam xaddis boobu ndax loolu mën a am la dana ñëw danañ si ñëw ci kanam ñooñu a ima yooyu dañoo tere nit ñi ñu di leen roy di leen toppandoo wala ñu jël seeni xalaat su fekkente ne dafa wóote ak dalil su fekkente ne seen xalaat boobee dafa wuti ak dalil wala sax ki nga xam ne mooy jël xalaatu benn boroom xam-xam xamul ba xam ndax boroom xam-xam boobee fan la jëlee xalaatam al imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu dafa daan wax ne bu leen ma roy bu leen roy malik bu leen roy lawsaa'i lu may ngeen xam li ñuy wax di leen ko jox fan lañ koy jëlee fañ ko jële weesuwul ci alquran ak ci sunna loolu nag dàqul taqlit waaye tey newuñ ci bunt boobu moo tax dañoo ñëw rek ci di leeral eh, dayoob jàpp ci alxuraan sunna nu mu toll kon ñoom ñëpp dañoo defoon rek nattuwaayub ay wax muy xam-xam fi fi ñuy natt ni diw boroom xam-xam la mooy naka la jàppe woon ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi képp koo xam ne jàpp na ci ñuy jël ci moom xam-xam koo xam ne jàppul ci sunna duñ jëlee ci moom xam su ma nee sunna nag mooy doxalinu yonent bi te mooy jàpp ci alquran ak ci sunna di roy yonente bi salaa salaam ci mbooleem ay yëngatoom ak ay dalam ak waxam ay jëfam ak yi mu saxal yépp ñu ci roy yonente bi kon boroom xam-xam yi nattuwaay bi ñu daan natte ana kan ci moom lañu war a jëlee xam-xam mooy koo xam ne jàpp na ci alquran ak sunna képp koo xam ne gis nañ ngay jàngale ñu gis ne ko dangaa teg sa tànk ci alquran ak sunna dañuy jël ci yow xam-xam waaye saa boo sóoboo yoonu bidaa wala nga wax ne da ngay jàpp ci alxuraan yi kese su boobaa kenn dootu jël ci yow xam-xam ñoom dañ daan gis ne képp koo xam ne moo jàpp ci alxuraan sunna kooku moo tegu ca yoon wa képp ku wuteeg loolu kooku mooy ka sànku tomb juróomeel bi mooy ñoom aima yi su ma ne aima nag mooy aimatul mazahib ak mboolem boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci lañ bokk ñoom ñëpp dañuy wax ne képp كو خامني سنة يونت بي صلى الله عليه وسلم ليرنا تي ياو nga xamne li moy sunna ci daganul ci yow daganatul ci yow nga bayiko ngir waxi kenn ak koka kum mana don ajmau ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun lahu an yadaha li qawli ahadin min an-nas kainan man kan wa anna man radda hadith rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa ala safa halaka wa anna kulla ahadin ba'da nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqadu min qawlihi wa yutraku illa nabiya sallallahu ñoom day dañ daan gis ne képp koo xam ne sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leer na ci yow sañetoo koo bàyyi ngir waxi kenn ak kooka mën a doon te képp koo xam ne ab xadis leer na ci yow ba nepp nekk xadis bu wér te nekk xadis amul benn illa su boobaa de boo ko delloo nangu woo koo jëfe ngir ne diw nangam la wax su boba yow taxaw nga ji buntu paxum alkande dañ na wax ne nit ñepp amna na jël ci ñom am luñu bayyi ci ñom bam dess kenn kooku moy kan yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. ñom de dañ na wax ne yon yépp dafa teju ci binde fi bam dess wenn yon muy wan yon moy yonu xañtu sunna si bi sallallahu alaihi wasallam ak top ay jeexitam ak takko yon way bañ ko wacc weneen yoon woo mën a jaare rek jàdd nga wenn yoon rek moo ubbeeku mooy topp ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di xañtu sunnaam bañ koo wàcc tomb juróom benneel bi kon nañ xam ne mboolem a aima yi nga xam ne dañuy leen a nangul xam ne ay boroomi xam-xam lañ rawatina ñi nga xam ne dañuy sukkandiku ci ñoom ci wàllu xam-xam ñoom day daawuñu wóote mukk ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku demee nekk imaamu Malik ku demee nekk imaam Ahmad imaam Abu Hanifa imaam Shafii ak mboolem aimatul mazahib kenn ci ñoom daawul wuute ak sunna su yonente bi salaa salaam du ci lu tuut du ci lu mag ndax kat boroom xam-xam yi ñoom ñoo wuutu yonente bi ci xeetam wi ñoom ñooy dundal sunnaam si ñoom ñoo fexe ba alquran ak sunna des nit ñi fekk ko fi kon bu ñu dee wax alxuraan sunna ñoom ñoo tax bu ñu dee wax sunna bu ñu dee bu ñu leen dee wax ñoom itam bu leen dee tudd alxuraan sunna tax kon ñoom ci alxuraan sunna lañ leen xam waaye alxuraan sunna it ci ñoom lañ ko xamee ma ne aimatul mazahib yooyu njiiti eh, ngir yi buñ dee buñ leen dee tudd alxuraan sunna tax waaye tamit bu ñu xamee alxuraan sunna njiit yooyu ñoo tax ndax ñoom ñoo na ko jottali loolu ñu xam ko bu baax a baax. ñoom daawuñu wute ak sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit dañoo war a xamaale nag ah nekkat njiit yooyu yii ak lu seen xam-xam bari bari bari bari bari bari amul kenn ci ñoom koo xam ne dañu mën a wax ne dajale woon na mboolem sunna bam jeex moom dong masalan mënuñoo wax ne Abu Hanifa lépp sunna xamoon na ko déedéet ñàkkul moos am lu ko mën a rëcc duñu wax mukk ne Imam Malik lépp na xamoon na ko déedéet manoon na am ay xadis yu ko rëcc te yooyu am na nay firnde yu baree bari yu koy tegtale kon kenn koo xam ne dafa peeg sariya ba jeex loolu amut waaye nag xeet yi buñ dajoo buñ dajaloo ñoom danañ peeg sariya ba mu jeex lépp sariya wattu nañ ko ndax suñu borom moom moo ko wattu waaye nag wattuwu ko ci benn jëmm moo tax dangay ngay fekk ci kii ay xadis yoo xam ne doo ko fekk ci kaja des am ci xadis yoo xam ne da nga ci kii te ko fekk ka ca des su ko defee nag loolu moo tax doo sañ a topp kenn ci ñoom ne duma wuteeg moom mukk ndax bis dana ñëw moos am masala moo xam ne xadis ñëw na ci bu wér waaye aima boobee wala imam boobee ngay topp moom jotu ci woon tomb juróom ñaareel bi kon dafay war ci bépp jullit boo xam ne ndigalal yonente bi salaa jot na ko maanaam woote bi jot na ko mu jafandu bu baax ngoy ci sunna si yonente bi salaa ba noppi di ko leeral nit ñi di leen ko jàngal tomb juróom-ñetteel bi mooy koo xam ne sunna leer na ci yow nga ngoy ci jafandu si ah, di ko jàngale waaye nag di soññ nit ñi nag képp koo xam ne woote na ak moom donte kookee ak xalaat ak ku mu mën a doon ak lu mu màgg màgg ci sa kanam su boobaa na ko bàyyeeg loolee muy woote te xam ne loole muy woote ak càngute la waaye du am njub waaye nay moytandiku di jàdd di jaar ci ñal yi waaye nay moytandiku di am maanaam benn duut ci ne alxuraan sunna mooy li mooy liñ ñu war a topp ndax lan ku ne xam na ne képp kuy sikk sàkka ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkutoon ci am njub rek kooka moom dub jullit képp kuy sikk sàkka ndax yonente bi ci am njub la nekkoon wala nekkutoon ci njub kooka dub jullit te bi sallallahu ci alquran ak sunna ci la nekkoon kon képp koo xam ne xas na xam ne nag yonente bi sallallahu alayhi wa ci alquran sunna la nekkoon fan lay jëmati fan lay jàddati jëm kon amatul wenn yoon wu muy jàdd di jëm lu may na topp rek yoon wi moo tax borom bi ne wa anna hadha siraati mustaqiman fattabiuhu sama yoon waa ngi nii jub na xocc na ngeen ko topp amatul weneen yoon wu jaadu woo xam ne dañ ko war a topp di bàyyi alquran sunna ci jullit bi mbokki jullit kon lii foofu la yemale dars bi di leeral rek ne e, jàpp ci alquran kese bàyyi sunna su ba ki ko def teguwul ci yoonu njub jàpp ci sunna kese bàyyi alquran ki ko def teguwul ci yoonu njub kan moo tegu ci yoonu njub mooy ki nga xam ne dafa boole alquran ak sunna di ko jëlee nag ci boroom xam-xam yi moo tax dañuy wax ne alquran sunna bi fahmi salafil umma alquran ak sunna ci déggiinu boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu woon la ko tàmbalee ci saxaaba ya ca taabiuna ya ca atbaaxu taabiina yi ba nit ñu ko jotlee ba ñu jot ci ñii képp kuy wutee ñoom rek yaa ngi jaar ci yoonu cànkute ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu barkeelal ñu suñ dawra bii waaye képp koo xam ne jot nga ci rek nga jariñu ci ñu ko doon jàllale suñu borom defal leen ci tawfiq eh, dëpp dëppale ko ak ngërëmam hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain